Anyways.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 saytu jàngoroom ba gis ko sàkk ki saafara mala yi tamit naka noonu dana ñu feebar ñu seeti vétérinaire saytu seen jàngoro ba gis ko sakk ki saafara waaye nag jàngoro réew mi moom kenn saytu ko ba ki sàkk saafara moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax Sénégal daal laa xamul léegi lu tax nit ñi bëgg lu bon xaw feebar la xaw may jinne ñu dugg waaw réew moo xam ne maara dee taali am na ñoo xam ne balay ñuy am jàmm rek def taati neen di filmer seen bopp mbaa ñu nekk ak góor gu dul seen jëkkër di filmer seen bopp mbaa sax ñu dem ba nekk ak seen jëkkër ci intimité di filmer seen bopp ëpp ba nag li ci mujj am mooy vidéo yi teeri ci internet bi nga yàqu ba faw ma ne ci marché yaa tàgge sa bopp laa wax te nag saa su njombe yooyu amee li ñuy taafantoo mooy samay données personnelles patati patata piri waaye nit day nite waay waaye doya di ba maara dee taali weer sa bopp sàggane say awra ba mu wër àdduna wërngal këpp ngay jooy ak yërëmtalu waay waay waay waay baax na rek ma ne moo tax ku ko ci dëkkee daal li dal ndaw si rek moo lay dal diw yoo ci tur yeeg rek deebee bokk ci ab groupe whatsapp bu mag boo xam ni membre yi toll nañ ci 3000 naka noonu nee ñu soxna ci si ak saganteem ci la publier ci groupe whatsapp boobu ay image am yoo xam ni maar dee taali ma ne bët bu ci tege tuuru laa wax eskay grec deebee moomu nag gannaaw bi mu yëgee ni def na njombelu rëy publier ay vidéo taati neenam ci biir groupe whatsapp bi ci la dal di gaawantu dal di duggaat ci groupe bi supprimer vidéo yi ci piri nag mbir mi jeexewul noonu de njëkke woo ba mu supprimer vidéo yi ci biir groupe bi am na ñaari jigéen kenn ki di wuyoo ci turu Sejop kacca des di wuyoo ci turu Andour dañoo télécharger vidéo yi ma ne ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp laa gannaaw loolu nag ci la YDB mi publier woon ay vidéom ci groupe whatsapp bi gëja am jàmm ba mbir mi mujjee teeri ci loxoy yoon ba sax ñu ngi ko doon àtte ci tribinal bu flagrant délit bu ndakaaru di toppee Andour ak Sediop ñi téléchargé vidéo yi li tubaab naan fait de diffusion d'images contraire aux bonnes mœurs ma ne bu publier wul woon ay vidéom lii du ko ci fekk avocat Andour ak see Diop ñi nga xam ne ñoo tele vidéo yi nee na ci kanamu yoon ay clientam defuñu dara ki def njombe dal mooy YDB mi publier ay vidéo ci groupe whatsapp bi waaye ma ne te muy dëgg waay fi mu ne nag boobu mu ngi sàkku ñu bàyyi ay clientam ba li ci yoon mujj dogal nag mooy see Diop ak Andour mi téléchargé vidéo yi yoon mujj na leen daan ñaari atu kaso yoo xam ne duñ ko ma bàyyi leen summeeku ba ne dung defi vidéo di publier seen bopp ku ko ciy def daal nii rek moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca ginnaaw raay sit doy na waar ab élève u cm moo fa jam ab élève u sixième B ba mu fa ñàkk ba kanam cay mim réew mbir mi nag mu ngi xew la 2 bi weesu élève bi ray mu ngi wuyoo ci turu MS nekk ca CM bu APIX foofu ca ginnaaw ray si hmm, ma baax na nañu dem rek moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Tiwaawoon pël romb na doy waar ab soxna soo xam ni at yi mu ngi toll ci juróom benn fukk di wuyoo ci turu MW bàyyee ko woon ca Madina Gunaas ñëw ca Tiwaawoon pël la ñu fa fekk ñu takk ko ba noppi dal di koy faat waay waay miim réew ndaw soosu nag nee ñu moom kotta dëkkoon doon jaay ay bale waaye korite gi weesu daal la ab dëkkandoom jaaroon foofu doon ko baalu si àq ñëw daal di yem ci njombeli fekk ñu liggate ko daal di koy faat naka noonu nag ci lañu alerte ba ba sapeur mu jee ñaw jël corps bi yóbbu ko ci ab district sanitaire ay njombe loolu nag autopsie MW mi ñu faat li mu wane romb na doy waar ndax autopsie bi li mu wane mooy soxna si dañ ko violé ba noppi door ko faat ay waay ay faatin biñ ko faat nag moom la tubaab di woowee asphyxie mécanique par strangulation waay waay réew mi fan yi wax dëgg weddi yàlla rey yi bari ay xale yu ñuy faat ay mag yu ñuy faat ma ne agressé nit jam ko mu dee ñaari góor di xeex ndax jigéen rayante réew mi daal léegi saaboo boo rey nañu rey nañu rey nañu rey nañu mooy li ma waxoon rek fekk yóbbuwuñu stade de l'amitié ay nit yuy fàtte tey ko faat leen ma ne faat du fi jóg faat du fi jóg laa leen wax mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz